dal leen ak jàmm yéen yu bari xëyandoo euh, dogalu atte jëm ci li nga xamante ne mooy procès Ousmane Sonko dogal ga ñu ngi koy xaar benn fan ci weeru juin euh, fu procureur bokk na ci euh, fukki atu kaso yu mu teg ci ndoddu Ousmane Sonko kalamaan gañ ko daan bokk na ci juróomi at yeneen jëm ci wàllu corruption guerre jëm ci wàllu ndaw ñi Walf Quotidien taxaw ca tribunalu Ndakaaru procès jëm ci wàllu viol diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko yéen kaay bi gis ne safoon na sap démb ca tribunal ba yéeme euh, moo fa xewoon bokk na ci kàddu yu doy waar yu amut ak yu àndut ak worma moom la aju Sarr yëkkati euh, jëme ko ci Ousmane Sonko ay ay avocat Ousmane Sonko euh, jël seen kàddu xam le ne at bi jaarul ci yoon bokk na ci kayit gay firnde ne Ousmane Sonko waroon a dem wuy ji kayit googe jotuñu ko ay avocat Ndeye Khady Ndiaye tamit ñaawlu ni at bi demee dañoo salfañe ak ak yelleefu Ndeye Khady Ndiaye mi doon jigéen ju werul te toll ci juróom-ñetti weer yéen a kii di enquête xëy duñu enquêtal ci li nga xamante ne mooy dogalu àtte ba benn fan ci juin lañ koy xaar jëm ci càkkuteefu procureur mi sàkku fukki atu kaso ñu daan ko Ousmane Sonko yéene cabinet maître El Hadji Diouf di avocat ji Sarr mu ngi sàkku alamaan gu toll ci benn milliard ak yu toftal yéene cabinet défense Ousmane Sonko ak yu Ndeye Khady Ndiaye dañoo faf bu maanaam euh, du moyu audience ba ndax dañoo gis ne àtte bi jaarul ci yoon bokk na ci Ndeye Khady Ndiaye ak capitaine Touré ak Génico ba ñoom ñëpp indi nañu ay leeral ci euh, la xamante ne moom la ñu jot a fekke wala xam ko ci googu lépp dossier yéen kabi di la quotidien procès Sonko ak Adji Sarr x la ci bind tey ci xëtam bu njëkk bokk na ci ay yu yu doy waar yu Adji wax démb jëmale ko ci la mu jot a jëflanteeg Ousmane Sonko ca suite boote yéen kabi ne Ndeye Khady ak kaddu tuuma ak kaddu dëggal yam fa jot a ca tribunal ba yéen kabi xëy ko fësal ñi ci indi ay CD docteur Gaye wax na ca Omar Touré ak Sidi Ahmed Mbaye ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp jot nañ leen caa déglu yéen a kaabi di Sud Quotidien audience spéciale gàngoog chambre criminelle fala mbirum Sud Beauté eh, teeri ji acte 2 bi jot nañ ko amal procès goo xamante ne amutoon défense ndax ñi taxaw wara a layel ki nga xamante mooy Ndeye Khady Ndiaye dañoo faf du moyu ndaje ma eh, ba ci ñi waroon a taxaw Ousmane Sonko avocat yi eh, jotu ñoo jël kaddu ci ndaje googule jàpp ne Ousmane Sonko ak ak yelleef gi waroon ci dossier gi ni mel dañ ko joxul Ousmane Sonko bokk na ci sax kayit ga koy firndeel convocation ba moom la jotul bu ñu sukkandikoo ci ay avocat am Adji Sarr moom euh, xamle ne diggante ak Ousmane Sonko jot na cee leeral lu bari Ousmane Sonko mi jotut a teew ca tribunal waaye nag fësoon lool euh, ca googu lépp audience euh, yéen kabi di critique mu ngi ñuy dégtal procès Adji Sarr ak Ousmane Sonko yéen cabinet dund nañ ko démb ca tribunalu Ndakaaru lu yéeme génn na fa sutura jeex na fa yéen kaa bi moo ñu ko yëggee ci xëtam yéen kaa bi di las ne bi le procès Ousmane Sonko ak Adji Sarr nuroog euh, porno ndax euh, kaddu yu doywaar yoo xamante ne moom la Adji Sarr yëkkati euh, du kaddu worma neexuta déglu moom la Adji Sarr fësal diggante bak Ousmane Sonko la xew seen biir ca suite boote fa la xewee kaa bi di ñu dégtali tamit li nga xamante ne mooy Ousmane Sonko bu deful ndànk meeru Ziguinchor daan yi procureur sàkku buñ ko jëfee mun naa tar lool ci ndoddam yéen kabi di l'info ne aji euh, lu mu xamal Ousmane Sonko wax na ko demb ca tribunalu Ndakaaru yéen kabi ne sulli na fa fay mboot euh, wuññi euh, sutura am na ca tribunal bi démb ndax sutura amatu fa aji sar la mu xamal Ousmane Sonko wax ko fa ci biir yéen kabi di l'info yéen kabi di le peuple quotidien wax ji wax ji mooy ay révélation maanaam ay mboot jot na fa subleeku xeetu massage yi nga xamante ne aji sar mu ko doon amal ca salon de massage ba xëy ko ko faram-fàccee eh, ci biir yéen a di le peuple quotidien yéen a di réew mi quotidien procès eh, jëm ci mbirum Sweet Beauté Adji Sarr eh, wuññi na sutura ci góor bile dossier docteur Alfousseni Gaye wax na la mu xalaat ci bile dossier ni ki démb bokk na ci avocat Ousmane Sonko jàpp ne atte bi jaarul ci yoon te amul benn dogal goo xamante ne mun naa gàkkal ak gantal Ousmane Sonko ca lañ koy tuumal yéen a di 24 heures mu ngi ñuy dégtal tukki ba ca Sweet bokk na ci procès goge audience spéciale la mujjee am démb diggante Sonko ak Adji Sarr maître Ciré Clédor Ly àdduna ci mbir yi doxee yoon euh, daanaka nam cey euh, doxee moo jaarul ci yoon avocat bi wax na ko bokk na ci Seydina Omar Touré euh, jàpp ne bi le dossier jaarutoon jaadul woon ñu falsifié wala boog di yeesalaat wala di soppi PV ba don lu jaaxal lool ki nga xamante mooy Seydina Omar Touré ci biir yéene kaa yor-yor bi mu ngi ñuy procès gi ni Sonko. Euh, mënuñu ko daan ci bile dossier maître euh, Cheikh euh, Khoureyssi Ba le na ko jàpp ne tamit lañ koy toppeek na mbir ya demee ak ñàkk jotu convocation Ousmane Sonko doon lu leen jaaxal mu ngi ci yor-yor bi yéen a bi di l'évidence ne audience gàngoog audience publique jëm ci mbir mbirum Sweet Beauté procès criminel goo xamante ne amutoon défense Adji Sarr moom la mu xamal Ousmane Sonko ak preuve ak yeneen ak yeneen wax na ko fa yéen a bi ne as tuut ñu toroxal fa Ousmane Sonko ndax vidéo ak ojo yan fa bëggoon a wone te loolee mujjuta sotti yéen a kaabi di bés bi jour ne yëf yi safoon na sàpp ca tribunalu Ndakaaru parquet bi sàkku fukki atu kaso eh, yu mu nar a daan Ousmane eh, Sonko bokk na ci tamit eh, juróomi atu kaso yeneen yoo xam dañ ko toppe mbirum corruption maanaam ger yéen a bi moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk capitaine Touré dëggal ne PV ga war waral coow di am na luñ ci jot a modifié dañ ko fa soppi yéen a bi di turbine di ñu dégtal Serigne Saliou Guèye njiital yéen a bi di yor-yor bi xam le ci jamono ji ma nga garde à vue bi euh, nañ ko démb ca sûreté urbaine yéen a cabinet lañ koy toppe bokk na ci euh, mbubo loo doonul taskatu xibaar ga mu ne moom la doon te amul carte national de presse euh, bokk na ci ba ko ñaareel te ñu toppee ko Serigne Saliou Gueye mooy xotti worma attekat mu ngi ci yéen a cabinet di turbine yéen a cabinet ne defati nañu jaloore ci Afrique Sénégal waabale na daanaka coupe yi fi kaaf tegoon Sénégal jël na ko juróomi coupe moom la Sénégal moom la suñu gaynde dugal ci Sénégal ñoom équipe nationale yi yu fi jot a jaar yëpp daanaka moo xam U20 ak U17 ak euh, ñoom Sadio maane gardien ya maanaam góol ya moom la xëy euh, di ñu dégtal euh, gardien yi nga xamante ne xereñ nañu lool ci seen walla yéen cabinet combat Tafatine Sa Thiès combat gi ni mel tuddoon nañ ko fi ana lu waral mu tàggatembe ba léegi combat gi ni mel munagul taxaw mu ngi ci yéen cabinet di suñu lamba yem ak fu ñu jeexale xëtu yéen kaay yi ci tënk mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal daañu ci dikkaat incha allah